maara day taali benn nit moo ci ñàkk ba kanam jakartamaan bi te yoonu mu nekku si wallaahi xam nga nit dina def dara waaw dama ne fi mu gaare baaxul mais ah. nit dangay def ay mbir mu lay topp gis nga accident yu bari yi concert de yi ñoo ñu topp ba tey mhm. parce que ba concert casserole amee jinne yi dañuy soxla deret parce que soo fëggee bool jinne yi dañuy daw si dugg ci biir réew mi dañuy soxla mhm. deret bañ koy dóor ci la deret ju bari doon tuur concert de casserole yooyu moo ñu topp ba tey ba chaque jour nga dégg réel ñu ne su réel la amee rek na nit ñàkk na ci ba kanam donc musiba bi ñu doon def ba ñuy nekk opposition musiba boobu moo leen topp ba tey xam nga man damaa sonn ci El Malick na démissionné. damaa mhm. sonn. Mhm. dama cee sonn di ko wax. parce que li tax ma ko doon wax c'est parce que moo demandé moo ko demandé woon mu démissionné mais mënumaa dëkk di di ko wax naan mu cest à gàcce gi mu am tey sax moo gën a rëy. Mm-hmm. xam nga luy gàcce gi. mooy lan. mooy dugg ci biir BRT. Mm-hmm. lancer prise de ñi ñuy jël passager yi. nga toog ci kanam war a am war a cest nga toog ci kanam wara a lancer ñi nga xam ni muy demande di jël clients yi. Mm-hmm. nga toog gouverneur toog ci kanam. avant lu mu doon wax. dafa doon wax ni BRT du priorité. ah dafa xamutoo dafa xamutoo non non non wallahi wallahi wallahi askanu senegal mm. ñu jóge banlieue bi tey dem liggéey mm. xam lañ luy njëriñu BRT mm-hmm. parce que ña daan tardé mm-hmm. ña daan jóg 6 heures du matin jógatuñu 6 heures du matin mm-hmm. loolu mooy vision yow mi nga xam ne danga nga taxawoon doon ko ŋàññi démb ak barki démb yow yaa loolu yow la yàlla def yow nga toog tey ci kanamu BRT bi gouverneur toog sa wet ñuy ñuy inauguré jëlu jëlum passager nga génn ba nga génne ñu dékk le micro saa nga wax ni ñi ngi xaar 380 bus yoo xamante ni gaz lay jël te président Macky Sall moo def commande ba yàgg na hmm. yàgg na depuis kañ depuis ba ñuy lancer travaux BRT yi hmm. ci la commandé lépp ci la def lépp c'est-à-dire bus yu war a def ci BRT bi yëpp président Macky Sall def na ko financé na ko ba pare jënd na ko ba pare parce que mënoo fi ne le 30 mai jënd nga fi ay bus hmm. le 30 mai donc moom ba muy wax parce que état continuité la. Mhm. wërsëg bi ci ñoom la tombé ñu ubbi ko wala ñu dalal 380 bi yi. na mais da ngay gërëm ki nga xam ne moo liggéey chantier boobu. BRT bi ñu santaane woon ndaw yi taal ko. BRT bi ñu santaane woon ndaw yi sag sagage ko. Mhm. BRT boobu moo jóg di daw clients yi taxaw di fa di di ko di ko di ko di fa jël ay nit. Mhm. donc gàcce la République Macky Sall gàcce gàllaama ki nga xam ne moo am vision boobu. ba permettre suñu mbokk yi nga xam ne dañoo dëkk géejawaay dëkk ci banlieue bi. war a dem ville daw ko ci 45 minutes. xam nga chiffre d'affaires bu BRT def tey. Hmm. xam ngeen ko est-ce que sénégalais yi xam nañ chiffre d'affaires bu BRT def tey. 300 personnes ñoo si jot a yëg wala. ëpp na 300 personnes. Hmm. parce que ñoom dañoo gis naa benn. Euh, dama ne article ñu def approximativement chaque jour 350 personnes bu si yéegee dinañ am 400 xaw ma ñaata milliards. mi mi déggoo ma la tey jii liberté bi di jël dina ëpp 1000 personnes dans la journée. Hmm. parce que ngi commencé 7 heures war a jeex mais 21 heures bi ñu déclaré tamit gàtt na de. non dama ne gàtt na donc la waxtaan ak ñoom rek. ñu gën ko yokk pour permettre aux travailleurs pour permettre aux travailleurs ñi nga xam ne dañuy guddee wàcc. parce que xam nga kaaru ngoon daa am. waaw moom laa wax pour permettre ñi nga xam ne dañuy guddee wàcc. Mhm. ñu mun ko jël à partir de minuit. Mhm. parce que bus war na mën a daw ba minuit. parce que dernier bus ci Dakar dem dëkk mi ngi départ 23 heures. donc war nañ nous permettre bus à pour permettre à toute la population qui habite la banlieue ñu nous dem ne dem di ñu des jël dem ma mama <laughs> <laughs> <laughs> sama sama sama sama sama ñi ngi des c'est-à-dire Dakar. Dakar aussi ñu ko jël dem war ko

waaye nag nee nañu nee am na ñoo xamante ne nee nañu man nag loolu soxor laa ko jàppee nee nañ Verdun rouge daa xañ xam nga Sénégal moom soo defee ñu wax soo deful ñu wax. daa nañ ko def couleur Pastef tey tey Verdun rouge mooy couleur drapeau Sénégal. Mhm. xam nga tey suñ ko defoon beige commencé coow. coow lay bëri wax. mais ñu bàyyi ko drapeau national. Mhm. woon Sénégal ni ko lii Sénégal ko moom jarul yàq mais tey am na ci ay gaar yoo xamante ni. parce que 23 gares la war a am. Mhm. tey moo fonctionné. Mhm. lu tax 14 gares yi fonctionné te yeneen 9 gares yi fonctionné wuñu. dañ koo saccagé yàq ko ci seen i émeute. Mm. maanaam dañ soxor. ces gens qui sont arrivés au pouvoir. dañu soxor moo tax li leen di dal dal leen. mais ñooñu loolu ñoom. seen yoon dox ma naan seen yoon nekku si de. dama ne nga ne. ñoom loolu seen yoon nekku si de. waaw seen yoon nekku ci mooy lan. parce que loolu jeunesse bi la. yéen am ngeen si part de responsabilité mooy waa APR. dama Pastef am na si part de responsabilité dama ne dama ne. parce que ko sekkoon. li nga xam ni ñoo moom li nga xam ni réew bee ko moom. askanu senegal lépp bokk ko ñu jël askanu Sénégal def ci réalisation yooyu nit waru koo yàq. dëgg la tey ñi doon xalab BRT bi tey ñooy xëy di daw di ko jëli. déglul baax li ma la wax ñi doon xalab berte bi di ci sànni xeer di ko toj tey ñoo xëy ak suba ak gannaaw suba di ko jëli. man est-ce que xam nga ne BRT bi dafa neex ba pare jox ma une information de taille boo xamante ne man dama dama dama ko rafetlu xaar ma ko woon. xam nga luy xam nga luy information bi de taille. Mm. soo jëndee billet bu 400. Mm-hmm. ñu yónni la nga jël jënd billet bu 400 dem fi ngay dem. 30 mm-hmm. minutes après nga dellusiwaat ci même billet bi ngay jëlee bus bi dem ñibbi. Mm-hmm. maanaam bu weesul une heure de temps mun nga utiliser billet bi ñibbi. c'est-à-dire su weesul une heure de temps benn ticket bi nga jënd 400 francs moo lay def aller retour. donc mun ngaa dem Peter Sen. wacc peter sen def say course mu def 30 minutes nga duggaat ci bis bi delu wat delluwaat way mu dikel 400 mu dikel 400 francs. torop xam nga lolu say gatcha nga la am president de la republique Macky mm. ba pare nak nga def aller retour 90 minutes. munoo ko joge jóge way dem peter sen ci 45 minutes munoo ko won muso ko xalat so jëlee tak so jëlee tak tak sax tak tak sax di nga def lopp une heure temps. Mm-hmm. mais BRT bi 45 minutes la koy def donc gàcce ngalaama ki xalaat loolu que tey euh, am na ku ko jël man ba kooku moo may jox ay daf ko doon testé ndax moom yàlla Pastef la waaw wax dëgg rek te yàlla tax waaw bu mag la mais daf ko mm-hmm. doon testé naa mm-hmm. mooy ñooñu xam dañuy sa mbokk yooyu seetaan rek TikTok waaw testé ko mais daf ma woo carrément ne ma RAS non du RAS de gàcce ngalaama Macky la ñu war a wax <laughs> jërëjëf Macky Sall jokkoo njal ga Macky Sall merci président de la République Macky Sall nekkul travaux kii Sénégal. Mm. c'est un projet du président de la République Macky Sall. de son frère Sall. du président de la République Macky ah d'accord c'est son projet pour l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise mm. parce que ceci est mon legs pour les générations futures. C'est muy vision pour un chef d'État. Mm-hmm. Madame li sénégalais yépp dans le cadre de des réalisations def ci biir dëkk bi mm-hmm. donc gàcce que ki nga permettre na samay mbokk yu joggé au fin fond de dem Petersen parce que choono biñ dal pour ñibbi mm-hmm. pour ñibbi suñu wàccee Petersen di nous à ci njaganjaay yi di Tataï, yi di fess ñuy am problème tardé gis mm-hmm. na te su ben nit gannaaw muy le président de la République Macky donc sénégalais seen xol sedd nañ ci président de la république Macky képp koo xamante ni jël nga BRT bi ak tranche boo mu mënti doon. sa xol sedd na guy ci président de la république Macky Sall parce que moo ko liggéey. moom la yàlla dogal nag mu liggéey ko. donc duñ ko duñu def lu dul gërëm ko sant ko ñi nga xam ne ñoo doon ngaañ ger BRT bi tey ñoom lay les principaux clients du BRT. te BRT bi li nit ñi xamul mooy mun ngaa yor sa oto gaare ko ñoo jël BRT bi dem liggéey ah, consommation électricité day euh, euh, embouteillage bi day wàññeeku ci biir dëkk bi parce que su ñëpp taalee seen auto dem liggéey embouteillage day bari. mais est-ce que tamit parce que moom bu waree romb kenn du jàll. non waxuma su waree romb. loolu tamit du indi embouteillage. déggoo li ma la su nit ñi garé seen i hmm. jël PRT bi dem liggéey embouteillage du bari ci dëkk bi. ñëpp xaj ci si BRT dama né BRT bari wul yow chaque 10 minutes benn jàll. waaye mais wuñ dañ ñëpp dañ cee dama né chaque 10 minutes. waaye ñëpp ñu si. dama né chaque 10 da nga naan ñen ñi. de nee naa la le 30 380 bus dina wàcc le 30 mai trois cent quatre vingt bus yoo xamante ni Macky Sall defoon commande boobu yàgg dina wàcc. le 30 mai bi trent bi. 380 fukk fan ak juróom ci des de xanaa kon agsi na kon. yow mi ngi ci yoon bi di ñëw. ah doyen. chaque 10 minutes benn bus ñëw taxaw nit ki su la neexee nga gaare sa oto di nga économiser carburant économiser paas fay téeméeri dërëm jóge géej waaye dem Dakar allez ah, lan moo tax loolu euh, kii wax ko El Malick euh, wax na ko de il a dit qu'il a va recevoir des bus yoo xamante ne gaz a koy dawal la trent mai. il a dit wax na loolu mais que. Macky ko andi. Ah. non non non du ko wax. iñaan la iñaan la ak iññate ak iññan ni xam nga moom moom moom moom c'est-à-dire waxul démbam daf koo dab waxul démbam daf koo dab parce que amul lu mu yekkul BRT bi. Mm. maanaam ñiy jël terre bi xam nañ njëriñu teer bi. ñi jël terre bi di dem ak ñew xam nañ njëriñu terre bi ah man de tey wax deug neex yalla mom ah ñi jël berté bi xam nañ njëriñu berté bi c'est-à-dire suma doon joggé fi sama kër ñaaré la nga way berté bi dafa jaar ci koñ ba hmm. suma doon joggé fi di dem dak di dem way golf sud dina fay taxi lu mu tuuti tuuti 2500 hmm. mais suma ko jëlé suma ko jëlé liberté 5 400 francs lay dem séti sama jabar di ñibisi jëlat 400 francs ñew De 800 francs économie si 5000 francs yi ma waron fay 4200 donc gafaka sénégalais yi yi dem di di dem di ñëw té taxi jël na gafaka 4200 francs 4200 mhm. francs par jour Si -hmm. soko multiplier le mois Si la bari na su 4000 francs ça fait combien ça, fait 120 000 francs le gafaka donc gàcce nga alaama président de la république Macky Sall moom mi am vision boobu pour xalaat askan bi neen seen seen poche lan moo ca ne